Mor Talla Ndao maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Maodo. voilà nga bokk ci syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal. nga wax ñu tuuti ci syndicat bi nga xam ni sos ngeen ko yàggu lan moo ko waral exactement. syndicat bi mën nañu wax ni droit la boo xamante ni yoon may na ko mboolem liggéeykat. li tax rek ñu gën cee mën a taxaw pour mu pour taxawal ko li tax ñu gën cee farlu pour mu taxaw. dafa am ay difficultés yu métti yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci autoroute Ila Touba. depuis deux mille dix neuf ba léegi. difficulté daf cee bokk. yi mois dañuy def quarante huit heures dañuy def trente deux heures d'heures supplémentaires mhm. c' est à dire semaine bi bu yow booy liggéey quarante heures ñun quarante huit heures la ñuy def mois bi dañuy am trente deux heures d'heures supplémentaires yoo xamante ni trente six mois kenn xayuñu ko ci loolu tam gis nañ ni prime de transport yi nga xamante ni mi nga ko évaluer ci vingt mille huit cent tamit trente six mois kenn xay ko c' à dire trois ans ba pare autoroute bi bi ñu <coughs> nga xamante ni mooy société exploitatrice bi de la CRBC jëluñu directement daf ñu versé si société intérimaire ñu wuyoo si turu trois CDD ñu xaar mu renouveler ko pour def ñu defal ñu CDI ci loolu lañ gis ne ñoom kat dañoo changer société bi indi beneen société bu tudd Makinews mais ci loolu li nga ci jàngee mooy Makinews bi ak Intelliman bi ki ko moom benn nit bi la c'est-à-dire dénomination rek leen changer ba léegi benn benn nit bi moo ko moom da nga pentiraat oto yi rek foo bindal inteliman nga bind fa matinus mais loolu tamit gis nañu suñu ay suñu ay versement IPRES nekkate versé wuñ ko trois ans yëpp cotisation euh, sécurité de yi tamit absence bi dañ ko noté mu metti trop trop trop léegi nag moom bi mu fiy jógee nga xamante ni signé nañ léegi ñu ngi ñuy indil beneen société boo xamante ni Tara mais Tara li grave mooy moom bi muy ñëw dafa annoncé ni dafay dàq ay éléments dafay rétrogradé ba pare contrat yi nga xamante ni embauche la xaar kii contrat de à l'essai d'engagement lañu ñu proposé loolu nag moo indi tey collectif bi judd parce que loolu dañoo defoon ñett na lii kat du ci dal. Hmm, maanaam injustice yu ngeen doon dund ci biir entreprise. injustice yi waaw kay ñuy dund ci entreprise durant trois ans nga sëgg ñu lay dóor muy metti ma nga yaakaar ne day jeex kii ñëw en quatrième position nga yaakaar ne day ñëw dalal sa xel mu ñëw nga gis ni kat kii moo nar a gën a pire que loolu mooy indi tey suñu société suñu suñu euh, collectif bi daal moom moom moom mooy ñëw doon syndicat bi nga xamante ni tey moom lañ taxawal point de presse pour euh, pour pour dénoncer nga xamante ni moom mooy injustice yi ñu ci autoroute Ila bi. waaw ngeen doon def euh, jàkkaarloo amaloon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi euh, jàkkaarloo ak taskatu xabaar yooyu le lan moo ko waral yan jafe-jafe yu bees. ngeen exposé waat. li ci li ci gën a gën a gën a gën a fës rek parce que bokk di bi ñu tàmbalee xeex bi ak léegi woowoon nañu ay waxtaan côté Ageroute. li ñu waxtaanee wax leen ñu li ñu metti ci autoroute bi ñoom dañoo jëloon ay engagement nañu lii kat duñ ko mën a seetaan lu mel ni ñu wàññi seen salaire lu mel ni ñu dàq kenn lu mel ni ñu rétrogradé lu mel ni tey ñu changé seen convention bi nga xamante ni convention commerciale la woon ñu yóbbu ko BTP yooyu yëpp duñ ko mën a seetaan léegi wax lañu li nga xamante ni tey moo leen metti ñu ne ko ñun kat li ñu metti mooy li ma la cité sànq suñu droit yi nga xamante ni gars yi dañ koy piétiner suñu acquis yi ñu kii ko ñu régulariser ko yooyu yëpp bi ñu ci waxtaanee mu mu toll ci seize points mais quatorze yi nangu woon nañ ko léegi deux yi nga xamante ni moom moo desoon mooy ñu revoir salaire receveur yi nga xamante ni ñoom ñooy gën a daj coono ci péage ñu leen di mm-hmm. waxtaanee ko beneen bi mooy comme léegi en situation boo xamante ni dañ leen a e ne ñaan ngeen eggali kii léegi ñaar yooyu mën na xaar ñoom nangu leen mais CRBC dafa war a signé signé wul ARA dafa war a signé mooy société intérimaire bi dafa war a signé nag ñu signé te boobu ba léegi mois de mars la ba léegi léegi dañ defee ay mouvement d'humeur di ko di ci wax léegi inspecteur ci la ci dugg inspecteur du travail de Thiès ñu koy remercier de passage bi ñëwee woowaat employeur yëpp ñu ak ñoom ñëpp ñu ñëw toog ñu waxtaan foofu ñu wax leen carrément ñu am na loo xamante ni mënatuñ ko lu mel di liggéey ay heures supplémentaires yoo xamante ni duñ ko fay DRH euh, bi nga xamante ni moom la waa CRBC société chinoise bi yabal foofu noonu dafa jël engagement ne moom dafay def benn planning boo xamante ni da nga ñu liggéey quarante heures léegi doote na am heure supplémentaire inspecteur xamal na ko foofu nekk ko carrément que ñii mën nañ def quarante heures ba pare heure supplémentaire parce que bu fàtte ne autoroute bi H24 lay def donc di nga mën a liggéey ay jours fériés di nga liggéey ay week-end di nga liggéey ay fête ainsi de suite léegi bi ñu proposé planning bi mais avant mu ñu koy proposé yoon daf kaa tënk ne ko moom na ko présenté au moins inspecteur mu càmbar ko mu dur la étape yooyu yëpp def forcing te ñu ngi def réunion bi le 24 yor na planning bi ñu laaj ko ci mu balee question boobu noonu mais imaginez la nuit du 25 la ñu ko dugalal pour ñu appliquer ko le 26. léegi bi ñu bañee nag affaire bi am indi ay xëccal bàyyi personnel bi du ko liggéey ànd ak collectif yi bañ biñ demee ba ci kanam ci la benn responsable Ageroute moom tamit ñu koy sant bu baax monsieur jong daal di ciy dox tànk jàmm daal di ñuy woo bi mu amee avalu ay ay supérieur am ñuy woo woo chef de gare ñëw ñu toog waxtaan. mun nañu ne lan moo tax ngeen ne doon liggéey planning bi ñu ne ko ah ñun kat yoon may nañu planning boo xamante ne bu ñu ko proposé ñu xool ne planning bii nii ndax du am ay effet négatif si suñu santé est ce que lii kat tey bu ñu ko liggéeyee bu weer bi dee li ñuy fayee ko duñ ko fajoo buñ ko xool xoolee lépp xam nañ ne planning bii buñ ko liggéeyee day métti ndax euh, Maodo liggéey boo xamante ne juróomi ñi da koy liggéey. nga mhm. jël ñett nit leen liggéey leen ko loolu dafay metti léegi ñoom ñu ne dinañ def de telle sorte nga xamante ne day oyof si ñëpp ñu waxtaan foofu bu tënk li ñu tënk daal di bind teg ñu ne léegi d' accord nañ pour liggéey planning bi mais imaginer bi ñu waxtaanee planning boobu ba liggéey commencé ñu commencé nag joxe ay lettre d' avertissement ay demande d' ci loolu ñu licencier ñenn ñi pour motif da nga bañoon liggéey planning bi planning boo xamante ni ñëpp bañoon duñ ko liggéey nga tànn ci quelque dàq leen ñenn ñi nga leen da ngeen doon permettre pour en plus de jours de repos dàq ñenn ñi nga ay lettre d'avertissement pour lan parce que tel jour solo woon masque tey loolu moo indi tey ñu ne xaaral ñii li ñu waxtaanee nanguwuñ ci woon tënk nanguwuñ ci respecté dara donc ñun il faut ñun tam ñu jàkkaarloo ak préfet wax leen suñu bi ñu inspecteur bi wooyee waxtaan ba pare ñu war a signé benn li ñuy tuddee un procès de conciliation ñoom nanguwuñ euh, chinois bi nanguwul mi woon foofu noonu du nom de Raphaël moom mooy représenté woon foofu la CRBC avec son DRH il y avait aussi Ablaye Thiam directeur exploit euh, exploitation bi nga xamante ni Ageroute ko yebal amoon na tamit madame Bey de la euh, société intérimaire Tara amoon na ñeneen ñi fa nekkoon ak ñun travailleurs ak suñu conseil juridique léegi foofu ñoom nangu parce que dañu wax carrément ñi ñu dàq ñoom d'une manière arbitraire ñu leen indiwaat à l'immédiat ñoom ñu ne nanguwuñ ko ñu fi ñu fa li ñuy wax un procès de conciliation ñu xam ne ñi ñu ne ñoom fi ñu jëm kat ndox amu fa ñun xaar ñu teel a jël suñu ay garde parce que li tax ñoom ñu am fit bi yëpp mooy ñun syndiqué wuñu syndiqué wuñu te jàpp nañu peut ñun xamuñu li nga xamante ni yoon may nañu ko wala mayuñu ko te yàlla xam nañ xam nañ ko dañ doon bañ a brûler bi rek mais yàlla suturaal nañu boobu ba léegi ñu ngi koy teg ci yoon léegi nag ñun point de presse boo déggee li ñu wax leer na. Mhm. suñu camarade suñu collègue suñu frère yi nga xamante ni dañ leen dàq dañu mën a très arbitraire même dañuy wax dañ leen indiwaat à l'immédiat beneen bi mooy ñun o ne veut plus travailler ak société intérimaire parce que société intérimaire bi nga xamante ni moom moo ñëw. inspecteur lañ leen wax c'est très clair kii amul benn norme juridique bu koy may mu yor personnel bi parce que c'est une société intérimaire te ñun bu bonee ba bon li ñuy wax société de sous-traitance moo ñu mën a yore te bu ñëwee dafay requalifier contrat yi en mode CDI loolu tey mooy li nga xamante ni tey yaatal nañ ko bu baax a baax ci kanam taskati xibaar yi. léegi yéen da ngeen menacer paralyser système bi. Euh, si màggal Touba bi waaw wala déet. ah comme ni mu la ko waxee rek yoon may nañu fi mu nekk nit ñu dugal préavis te dugal nañu ko depuis le 10 léegi nag dañuy toog xaar 30 jours maanaam un mois bu dee ci un mois yi matul bu ñu demee grève mën nañu taxé de grève sauvage mhm. mais bu ñu bàyyee ba un mois jàll te amul benn réaction bu ñu def yoon may nañu kat ñun ñu banque suñu ay loxo li liggéey. donc mais ñun gis nañ ne ñoom ñu ngi profité di def ay recrues. parce que période magal su ñëw dañuy recruter mais bi yoon li ñu constaté mooy recrue bi dafa bëri. Mhm. peut ñoom dañuy préparer ñun dañ cee ñaan njort que dañuy préparer ñun ñu demee grève ñuy former kat. ñu remplacer leen waaw xamal ni tamit duñ nangu kenn du dugg ci cabinet parce que on sur place mais duñ ubbi benn cabinet loolu yoon may nañ ko. est-ce que yéen ñi ngeen war a consulter ñëpp Mortalla Ndao euh, consulter ngeen leen autorités yi war a xam. problème bi yëpp xam nañ ko autorité compétente yi yëpp ci domaine bi may wax ak yow ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku si nekk envoyé nañ la courrier jot nañ accusé de réception comme médiateur de la République inspecteur du travail Ageroute la CRBC même la presse ñu si bëri sax avisé nañ leen même kilifa diine yi même ONG Jamra ku si nekk koo xamante ni rek tey njabootee nga ñu rek tey yéy nañ yàgg bi ak yow ci wax suñu problème bii nga xamante ni moo moo am te nga xamante ni tey imagine ñu ne le le le dix le le trente juillet di mat te le quinze même màggal Touba ñu à partir du dix bu problème bu problème bi réglé wul ñu ci yooyu yàbbi bu indiwul suñu collègue yooyu bu ñu reversé wul ci ci euh, contrat boo xam ne en mode CDI mooy jour boobu oto yëpp national la ñuy jaar incha allah. yéen kon da ngeen di paralyser màggal bi dem beeg dikk bi. waaw loolu ngeen bëgg a def waaw. mooy mooy ñoom bu dee ñoom réagir wu. man kay li wax leen yoon may nañu ñu bañ a liggéey jour boobu. Euh, bu ñu liggéeyul mooy chantage parce que xam ngeen ni màggal gaa ngi ñëw. non du euh, question de li olof di wax tombee waral ay gaaf. dañ ko déposé ba pare xam ni foofu lay tombeel et que tamit loolu tamit ça vaut le coup. mais mais mais tamit euh, peut-être laaj bu ñu ñu bari di laaj mooy autoroute bi ni mu amee xaalis ni mu chéré euh, nit ñi di fa jaar di fa fay naka la ñi fa liggéeyee wala di fa gën a sonn di euh, ah. évoluer ci conditions yu demee. léegi nag yow laaj boobu ngay laaj ñi ñun ñi di dañ koy laaj. ndax yaakaar wax autoroute bi am na xaalis loolu autoroute bi la mais kii liggéeyee ci autoroute bi mooy ñetti société intérimaire yi nga xamante ni kenn jaaru ci norme juridique bu baax maanaam kenn légalu si ñooñu seen ay employé yoruñu fa dara amuñu yëguñu yëguñu seen bopp ci liggéey bi centre ñu seen bopp te autoroute bi dafa am ñetti société yoo xamante ni amul benn booy dem ci kanam yoon yoon may ko mu war a yor personnel bi yor foofu parce que essentiel yow essentiel amul foo koy tàppe mu wàccal la ñu ne moom moo gérer femme de ménage te femme de ménage yi au ñun ak ñoom ñoo bokkoon benn société bu ñu gérer woon ñu dem bëti bi lu tax ñu diviser ñu en deux ñoo fekk femme de ménage dagg seen ci digg bi nga ne leen léegi midi ngeen wàcc gaar boo xamante ni nit ñi dañuy jaabante H24 ku wàcc midi de léegi de midi à au lendemain lendemain matin gaar boobu nan la war a mel sur le plan hygiénique la war a mel waa MSA bi nga xamante ni quarante cinquante deux heures la ñuy liggéey cinquante deux heures depuis deux mille dix neuf ba léegi benn contrat six mois ba léegi renouvelé woo ko ñuy fanaan ci tali bi risque bu ne ñu koy jël ku ku ku paan ñu remorqué la am nga tali bi ni mel ñii di liggéey guddi ñii di fanaan ku si ne mënuñoo gis seen bopp ci liggéey bi bu li ci gën a métti yow yaay feebar faj sa bopp ba ñuy wax ak ni société bii nga xamante ne moom mooy Tara Intérim bi mu ñëwee ba léegi mars lañ signé moom contrat ba léegi retour contrat amuñu ko. que c'est une c'est une boo xamante ni tey waruñu mën yor suñu société intérimaire inspecteur dafa wax carrément que tey même même booy indee contrat yi fii nii contrat yi dama koy rejeté pour lan parce que yéen yéen juridiquement parlant mën leen yor ñi yéen à mes yeux mu wu leen vous imaginez ñu liggéey depuis mois de mars ak société boo xamante ni man tey su ma demoon banque ne dama koy leb laay présenté. kenn reconnaître ko nekkul. maanaam mën na am papier mais papier bi ka may may pour mu yor ni il faut mu nekk au moins une société de de sous-traitance te moom société intérimaire la yoon may ko pour mu gérer personnel bii nii li ñu a wax kay wala ñun li ñuy laaj mooy kan mooy copte société yooyu tout en hmm. sachant que société yi amuñu droit yore personnel bii nii est-ce que yéen adressé ngeen benn appel euh, lancé le président de la république wala euh, ah. euh, autorité étatique yi par rapport à cette situation. moom laa lay wax ma ne la Moro yow sa bopp ci sa rajo toog naa fa wax. Mhm. bu yàgg toog naa fa wax. carrément ñëpp dégg toogaat nañu wal fajiri wax toog nañ DTV wax Pape Djibril Fall ñu koy nuyu de passage Mamadou Mansour Diop Pape Sidi Fall ku si nekk yaa ngi toog ci télé di wax te ñooñu c'est des c'est yoo xamante ni chaînes yu am audience yoo xam ne ñu ngi koy seetaan kon problème bi bu ëllëg si biir lu mënti xew bu kenn ñëw nañu yëguñu woon lu xew ñëpp yëg nañ ko di ngeen war a def def ngeen ko. alerte ngeen à temps def nañ ko alerte nañ. def nañ boobu mais mais si jamais. Euh, màggal mm-hmm. Touba bi ñëw ñoom réagiruñ màggal bi ñëw tombe yéen ngeen euh, ngeen dem grève ñu jël ñeneen teg leen seen. Euh, place keneen keneen keneen mun lool loolu loolu keneen xel xel sa xalaat. remplacé leen ak yeneen agent xel sa xalaat ah en tout cas ñoom ci ci lancé boobu lañ nekk d'après ñu suñu njort lim ñu may parce que ñu ngi former ay nit. ñi nga ñooñu ñuy ñoom sax xaj nañ ci bi autorité pour ñëw liggéey pour wan la tamit côté boobu pour wan la personnel bi dafa manqué personnel bi matul ñoom dañoo war a complété personnel bi teg ñu ci xamante ni suñu àq ak yelleef loo xamante ni yoon moo nu ko may ñu loolu ñuy laaj ñaanuñu kenn dara li nga xamante ni wareef la li nga xamante ni yoon may nañu ko ñu loolu ñuy laaj mooy àq ak yelleef loolu kese la ñuy laaj laajul leneen. voilà Mor Talla Ndao waaw ñu ngi leen di sant bu baax waaye tamit di leen gërëm bu baax. voilà may fàttali yaa ngi bokk ci syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal. waaw ah, kay jërëjëf.